léegi bu loolu weesoo gannaaw bëgguloo ñu wax ci dina ci force ndax euh, waaw ah, léegi bu ñu ñëwee ah, ci waaw léegi ci loolu laa ñëw ci loolu laa ñëw ah. gannaaw loolu weesu na léegi bu ñu ñëwee ci ñi nga xamante ni nii mooy huis clos bi gars yi di wax hmm. est-ce que Baye Mandione pare na pour bëre huis clos barke Rasulullaay promoteur bu fi jël say millions jox ko mbër di huis clos doo am benn kilo waaye ba xam huis clos nga xam huis <laughs> clos xaw ma daanaka jëm na kenn say xool kon jàpp nga ne loolu du luy doxal làmb. man tane waaye imagine yow yow nga yëkkat say milo jox ma yëkk sama say milo jox sama morom man rek mu ñëw si géew bi ak ki may bëreel taxaw benn arbitre moo fa nekk ñu ne ak ñu tëgg sabar quelques personnes stade bi moom ñu kenn ne fa les caméras yi moo nuy war ni ñëpp seen gëstu daan ko télé waaw promoteur moom lan lay gagné après te te promoteur sponsor yi léegi ni mu dëgëroon bu njëkkoon ñu jox xaalis bu bëri amatul léegi ay sponsor yi échange day ñamal gars rek. mais sponsor jaxate dañu ne bu ñu ko nangulee bu subaa mu tijji ko tëgg huit ah na dem billaay bu fi tëggee huit kilos oh, doo am sax benn kilo na na man daal la may wax xam nga lan affaire bi dinaa ñamal seen na kenn mu sool man de li ma gis defee barke ko Rasulullah promoteur bu ko fi def amoo sponsor di nga pare yaa ngi mbër mi ngeen dem gendarmerie ni man maa wax lii gannaaw gannaaw doon jox mbër mi ay ticket wala mbër mi andi ay supporter am nga doo ci génn asamalaa nag nga ne kenn bu mu ñëw yenn saa nga gis combat bu mag stade bi fees jël ba ñëm ne promoteur bi yàqu na xaalis promoteur bi wàññi ay billet am de billet yi xoolal bu jaayee ay ba pare yenn saa ay ñaata la ñuy jaay ay 30 millions ay jaay yow fek fayoon nga mbër mi mbër mu nekk cinquante millions wala mbër mu nekk nga fayoon ko quatre vingt wala mbër mu nekk nga fayoon ko cent millions tey bu fekkoon amoo sponsor bu la accompagner da ngay perte kon billet billet billet mën la fay mbër kon nag huit kilo boobu xamoo kilo ku fi bëgg ni tey jii lenn rek nga moo def mu am lenn kese kese promoteur bi wax la lii laa fere ci xaalis ah jox naa mbër mi temps jox naa mbër mi temps yaa ngi dégg sponsor bi jox la la nga joxoon mbëri sponsor bi jox la ko la nga frais d'organisation yi nga yoroon yëpp sponsor bi jox xaalis boobu bu la neexee nag bu boobaa yow jël nga sa xaalis yaa ngi dégg léegi da ngay def làmb ji pay per la xaw ma. après ni ñu toog seen i kër loolu ñu jënd na ci pay-per-view yi ah euh, carte pour seen làmb ji. Mhm. loolu mooy sa bénéfice yow loolu mën naa nekk. loolu moy sa bénéfice mais wi ku la joxe avance ay millions. Mhm. ngi dem ba làmb ji ñaari mbëri fo fa loolu dadul neex sax làmb li mu baaxoo baaxul ay huit kilos làmb li mu baaxoo ñëw taxaw tuus ànd ak say naw lay mbër ngeen bàkk lu neex a neex waykat yi way fii amateur di sañse bu rafet si kaw supporters yi supporter asu koy dóor si kaw yaa ngi dégg mbër yi bàkku suuf loolu mooy cosaanu làmb loolu mooy aar ak saafara yeeg yooyu xëppoo fii toj ay ndaa affaire loolu mooy sarmu làmb mais buñ fi jëlee yooyu yëpp ne huit kilos nag huit kilos ngi noog léegi le promoteur bu ñam na ku bëgg daal moom na na na na kenn na ñu xool ba xam waaw ñu xool ba xam